nan la ñuy def pour attirer ay partenaires ak jokkook ñoom ak liggéey ak ñoom pour suqali Sénégal coopérative bi nag coopérative COMIFA mooy coopérative des migrants et leurs donc lii moo waraloon njotaay mi tey di nuyu membres yi fi teew ñëpp di fas yéene jëm kanam liggéey ak ñi nga xam ni ñoo fi teew ñi ci jàppale ci liggéey bi. di ARD DRD ak sëñ Moustapha Mbacke eh, soxna Mbacke Fall membre COMIFA yi nga xam ne mooy président euh, secretaire général trésorier ak membre yi nga xam ne nii ñoo taxaw pour taxawal COMIFA sëriñ Ali Mbaw jóge Mbacke aussi ñëw jàppale ñu ak ñi nga xam ne nii mooy directrice bi nga xam ni mooy SEDAF. donc lii la ñu amoon jotaay tey lépp lu ci yaatal ñi nga xam ne ñooy sunuy kilifa jàpp ñu ba ñu agsi fii dinañ leen ko gën a leeral. ñu ngi leen di nuyu si jiital sëñ Moustapha Mbacké bu sëñ euh, Mourtala tey euh, dañu daje woon ne ñetti fan si formation coopérative ak euh, si thème mu administrative et financière bu coopérative formé nañ leen si ñetti fan yaakaar nañ ne ki formation bi jaar na yoon que ëllëg lépp. lu ñu leen jox ci euh, ci formation ci jumtukaay dinañ ko mën a jëfee. formation bi ci xeetu administration financière ci la euh, ci la jëmoon jox nañ leen ko ci ñetti fan naka nañuy liggéeye ci administration coopérative naka nañuy liggéey ci euh, ci trésorerie coopérative yaakaar nañ ne ki jox nañ leen jumtukaay yoo xam ne ëllëg mun nañ ko jëriñoo. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf. ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci àndandoo gi nga xamante ne si moom ngeen def euh, pour fas yéenee liggéey ngir Sénégal gën a jëm kan gën a jëm kanam. Euh, loolu dafa nekk ndigal loo xamante ne si sunu borom moo ñu ko njëkk a digal waxtasimu bi hablillahi jamian la alquran wax Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne mooy suñu maam it euh, su masaan fekk taalibe yi ci bitim réew loolu la leen di digal àndandoo leen takk takkatoo nekk benn pour fas yéene liggéey yóbbu ci seenum réew liggéey dundale ko seen njaboot. ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa dafay wax ne am na bàkkaar yoo xamante ne si julli du ko dindi woor du ko dindi saraxe du ko dindi lu dul daw loo dundale sa njaboot kon nag yàlla na leen sunu borom jàppale ci li nga xam ne moom ngeen def tey jii euh, diplôme boo xamante ne si kenn ko ci nekk teg nañ ko ci sa loxo yal na nga ko muurloo ba ay ndame ndam topp ci tàllal naa leen loxo pour ñu àndandoo fas yéene liggéey sunu sunu borom jàppale euh, balaa sama xol sedd dañoo taxaw fii ak 500 millions yoo xamante ne si génne nañ ko ci ci biir lii yàlla nañ sunu borom jàppale.